bi nga xamante yusuf nekk na ci biir nguur googu ba dëgër ci ati bek ati natangi yiñ toll ñu dem ba ati natangi yi jeex ati bekor bi daal di dugg si ab xiif tasaaroo ci réew mi kap daj fi kap wax nañ ni bi muy tàmbali buur bi da doon nelaw mu mel ni dafa dafa yëg ab xiif ci biir nelaw yooyu mu daldi yeewu tiit daal di Yuusuf ci kaw ni ko xiif bi ñëw na xiif bi ñëw na ni ko lii mooy jamono yi bekkoor bi ak xiif bi nga waxoon yow Yuusuf bi nga xamante ne premier at ci ati bekkoor bi dugg na lañ dajale woon lu ci ëpp ci at mu jëkk moomu ci la jeex waa mistre tàmbali di jënd si aw ñam ci yuusuf ndax moo yor magasin yi am na sax ci nattalikat yi ñoo xam ni dañoo wax ne at mu njëkk mi ci ay weccet la leen doon jaay atum ñaareel mi mu di leen jaay ci wurus atum ñetteel mi wurus xaalis ba desee tuñ ci misra dërëm desetu fa ab dinaar desetu fa lu ci ne rek yóbbu nañ ko ci yuusuf mu bay mu jaay leen ko ci aw ñam ba yoratuñ ci dara atum ñaareel mi ñuy indi seeni takkaay ak wurus yañ dencoon ba kenn ci waa dëkk bi amatul takkaay kum denc ndax lépp fab nañu ko jënd ji ko ab dund ci Yuusuf atum ñetteel mi mu ni leen ak jur laa soxla ñuy indi seenu jur ak i dàbb yi ñuy war ba lépp luñ ca dajale woon Yuusuf dajale ko maanaam nga xamante ni jaay nañ ko ko jënd ko ab dund atum ñeenteel mi ñuy indi seeni jaam yu góor ak yu jigéen yi di ko jëndee ab dund ba ab jaam bu góor ak bu jigéen desatul ci biir misra atum juróomeel mi ñuy jaay pàkk yi ñu dëkkee woon ak kër yi ba amul genn kër gu fa des te du Yuusuf jënt na ko jox leen ab dund nga xam ne loola lañ dëkkee moo ko moom atum juróom benneel mi ñuy indi seeni doom di ko joxe mu leen jox ab dund ñu dem ba ñoom ñëpp kenn amatu ci doom joo xamante ni jaayoo ko def ko ab dund atum juróom-ñaareel mi mu di leen jaay dund bi ci seen jëmmi bopp nga xam ne ku ñëw dangay ñëw joxe sa bopp nangoo def jaam ñu di la dundal léegi nga bokk ci biir ba mujj mesra as gor desatu fa ñëpp doon jaami buur bi nekk ci loxo yi Yuusuf nit ñëpp yéemu lool ci mbirum Yuusuf daal ni ko waat nañ ci yàlla ne ndey mosuñoo gis benn buur bu mel ni yow benn buur bu rafete ni yow mbaa benn buur bu màgge ni yow mësuñ koo gis Yuusuf daal di wax buur bi ni ko léegi ana lu ciy sa xalaat ci lii ma def buur bi ni ko lu ciy xalaat kay yaa koy xalaat waaye man amatuma ci benn xalaat lépp ngi sa loxo ni ko ñun ñëpp daal ñu ngi topp ci sa ginnaaw yow daal yaay njiit li fi toll nii Yuusuf ni ko ushidu allaha wa ushiduka anni qad ataqtu ahla misra jamian seereel naa yàlla seereel la ni ñi ma jëndoon goreel naa la ñoom ñëpp mañ delluwaat doonaat ay gor mboolem pàkk yi ma jëloon ci ñoom ak seeni jaamet delloowaat nee nañ ko ak seeni doom doom ya ak pàkk ya ak jaam